jaar naa la. <laughs> Eh, nag naka di la nuyu di fay aussi nuyoo bi mais di eh, may ma rek ma jaajëfal waa Sénégal di leen masawu. Mhm. ci li nga xam ne ni tis bi ñu dal. Mhm. démb vraiment Sénégalais yëpp dañu yendoo xol bu xol bu tis. Euh, metti na ba fu mu méttee am. Mm-hmm. vraiment sant yàlla te ñaan aussi loolu ñu annoncé ni ay décès la yàlla na yem foofu. Mm-hmm. amiin évolution bi daal buy am nañu wax ni blessé yi ñi wër nañ. Mm-hmm, di di jaale nag Sénégal yëpp au nom de l'association du euh, di jaale aussi euh, le peuple sénégal dans son entièreté à la tête duquel aussi son excellence monsieur le président Macky Sall. aussi rafetlu déplacement bi mu def mais di ñaan aussi donte jël na ay déjà ay décision mm. muy prise en sage yooyu mais na au le secteur aussi en quelque sorte ñu discuter xool yan disposition yi war a jël. pour mën a yu mel ni mën a gaaw amaat fii ci réew mi daal. voilà jërëjëf euh, Issa Laye euh, Diop. Mm. gannaaw bi nga euh, maanaam waxee ci tiis bii nga xam ne dëgg la métti na lool mm. ñu ñëw nag ci laaj bi ma lay njëkk a laaj. Issa balaa ñuy dugg ci mbir mi coow dafa commencé am de depuis bi Cour de comptes génne rapport mu euh, ku ci nekk ñu wax la lii ak lii ak lii ci Covid bi ñu ne douzième gaynde jox nañ ko cinq millions. Hmm. léegi nag euh, ci loolu may dégg nit ci di wax naan ah waaw. Euh, il faut que président bi expliquer wu. mooy Issa Laye Diop moom mooy président bi pour mu expliquer wu euh, bon euh, kii boobu ndax euh, loolu ñu wax noonu am na walla amul. waaw comme ça sénégal yi mën a xam waaw. waaw nu ma lay remercier ci invitation bi ñu def sànq ci sama introduction dama fàtte noté wax ni le douzième Gaïndé a demandé à tout ses membre que ñu dem si centre. transfusion sanguine bu bu leen gën a jege waaw pour ñu may deret mm-hmm. bu ñu jógee fii actuellement ñu ngi dem foofu fan def loolu dafa bokk si suñu mission régalienne mm-hmm. du seulement accident yi moo tax ñu koy def. credo c' est mm-hmm. mon sang. pour ma nation. donc di rafetlu aussi sa question bi. Euh, peut-être lu ma jox ni information nga ma jox ni tey. ah bon ah ah, information nga ma jox euh, ni que yaa am euh, coow bu mu dégg. je voulais juste dire que faut pas oublier que ni Cour des comptes <laughs> douzième gaynde. non non non non. non dafa joxe information. que ministère des sports xaalis bi ñu ko alloué woon. jox na ko ay association sportive loolu laay loolu que <laughs> loolu c'est une information. Uh-huh. qui est parce que douzième gaynde loolu suñ koy def encore une fois dafay wane ni kon douzième gaynde mission bi mu assigné wu mi ngi koy dox parce que il faut pas oublier que ni le douzième gaynde c'est une association nationale des supporters but bi ñu taxoon ñu créé effectivement c'était pour. accompagner toutes les équipes nationales du Sénégal. Mm-hmm. sportif yëpp. discipline mm-hmm. sportive yëpp. Mm-hmm. mais soo ñu yamuñu foofu. ndax dañu transversal. dañuy def la promotion du respect des symboles. des emblèmes des gestions de la République et les autorités qui les incarnent. dañuy def la promotion de la citoyenneté. le douzième Gaïndé accompagne le Sénégal dans tous ses combats ñun ba maa Covid moment bi nga xam ne ñëpp dañ doon daw. Mm-hmm. hôpitaux yi. Mm-hmm. ñun dañ doon dem di maye deret. moment Covid moment bi nga xam ne ñëpp dañoo toogoon seen kër effectivement le douzième Gaïndé daan def ay activités de sensibilisation parce que dañoo transformé woon suñu cellule yi ñu amoon. Mm-hmm. def ko en brigade de lutte contre la Covid. di jël suñuy moyens. ak suñu moyens yi partenaires stratégiques et financiers yi jox. ñu koy jënd en terme de euh, masque. terme de liquide yi infla euh, anti mhm. inflation yooyu yëpp ñu koy jënd di ko séddale di dem si sites yi nga doon xam comme ay marché yi ay garage di sensibiliser mhm. di def ay conférence de presse yoo xam ne aussi tamit pour wax ci loolu mhm. je pense que activité yooyu c' est une activité yoo xam ne deuxième gaynde def na ko c' est yoo xam ne deuxième def na ko ci moment wu Covid moo tax. donc amuñu amuñu si benn. benn donc nag xaalis boobu utiliser ngeen ko. normal euh, seen ay activités. xanaa kay li li ci xawoon a wax mooy dafa tuuti. dafa tuuti mais nag waaw. 5 <laughs> millions yooyu waaye dina teg lu mu jur. waaw waaw seen biir. non xam nga deuxième gaynde. voilà boo xam nga de sénégalais. te ñëpp mu ñu am information am ñoo xam ni. Mhm. duñ ñëw si activité yi duñ ko yëg. am ñoo xam il faut ñu jéem a xool mais quand même je pense que ni au niveau du deuxième gain vraiment on n'a pas ça. bon léegi euh, Issa Laye. oui dëgg la sànq yaa ngi ko doon euh, wax euh, rek mooy que douzième gaynde am na ñu bare ñoo xam ne maanaam du ñu xam bu amee compétition à l'extérieur naka ngeen di dundee dégg nga naka ngeen di dundee ñun xam nañ ko ñun ñi leen jege. parce que bii pas sax euh, pour la première fois de l'histoire euh, ci compétition euh, ñu boole douzième gaynde ak journaliste yi fu ñu dëkk. ça c'est une première. oui tout à fait parce que ñoo dëkkoon. absolument fële xaw ma la al man. al al albaya. <laughs> albaya voilà xam nga ba tax na. albaya village voilà léegi Issa Laye. Mhm. perspective yi ñu dem ci perspective yi Euh, Issa dañoo gis ne muy ci euh, yéen bon kee sax mais euh, dama gis ne dafa am gars yi ñu ngi commencé di am ay maanaam ay ay ay ñoo xam dañuy commencé di génn di beddeetu dal na kii nga xam ne moom mooy Ale Kaza yéen ñi tamit gis naa ne ay nit yaa ngi commencé di coow naan Issa moo fi nekk depuis quand nangam nangam te maa ngi rappelé ne Issa Laye c'est après 2008 nga ñëw. ah après Koumassi Ghana <laughs> voilà <laughs> waaw léegi waa Issa Laye hmm. léegi pour euh, comment nak nga war a mën a def pour rassembler ñëpp parce que douzième gaynde c'est le Sénégal rassembler ñëpp mu bañ a am ay friction ay division excuse-moi waaw merci je pense que il faut que nit ñi am aussi une compréhension une lecture positive de la chose hmm. douzième Gaïndé ni mu créé woo d'abord il faut nit ñi xam ko et j'en pour delloo njukkal vraiment ñi nga xam ne ni ñoo créé woon douzième Gaïndé mooy ñoom le ministre actuel de l'assainissement de l'eau et de l'assainissement mais le ministre Serigne Mbaye Thiam ñooñu moment yooyu ñoo créé woon douzième Gaïndé en quatre-vingt-douze avec le ministre des sports d'alors le ministre euh, Abdoulaye Matar Diop mm-hmm. ak ñoom <coughs> euh, ñoom Moustapha Diakhaté ñooñu tey nag ñooñu ñëpp ñoo créé woon douzième Gaïndé am na ñaan ci na bokkoon ñoom kan jàll bi nekkoon COSEC mm-hmm. ñoom Bira Thiam yi nekkoon Pikine donc ay tout tout ensemble xam nga loolu la ma la taxoon ñoo ko créé woon que c' était uniquement dans le but <coughs> une force de mobilisation et pour mën a accompagner équipe Sénégal bi organi bi organisé woon 92 donc loolu c' du bénévolat du volontariat et du don de soi mais di sens élevé de patriotisme soo xam ne kenn la ci fay hmm. toog di tàcc di wayal koo xam ne yow mën nga kaa jur sa doom loolu il faut avoir une générosité pour la faire loolu nag moo ñu law law la ba ñu egsi fii ñun bu ñu ciy dugg dañu jàpp ni le Sénégal nous a vu naître et nous a tout donné Sénégal jox nu éducation Sénégal jox nañu santé Sénégal jox nañu identité ñun léegi lan la ma defal Sénégal kenn ku ci nekk wàll bi ngeen nekk yéen a koy def yéen wàll bi ngeen nekk nii yéen a ngi def macha allah ñun nag ñu ni au delà suñu heure de travail ba pare suñu passion comme sport la. nan ko ci def jaarale fa pour servir sur notre pays. léegi nag espoir bi am ay pàcc. dafa am xam dañuy diriger ay dirigeants la ñooy yor fédération yi di doxal di tënk am ñoo xam ne ay acteurs principaux lañ. Mm-hmm. ñoo xam xam ne ñooy def sport. ñooy def euh, ñooy football wala ñooy basket wala ñooñu ay acteurs lañ. Mm-hmm. mais am ñoo xam ne beneen chaîne bi c'est l'écosystème du sport mooy les supporters ku nekkul dirigeant nag nekkul footballeur dama naan ku nekkul sax acteur ñëpp supporter nga nekk. Mm-hmm. donc Sénégal 17 millions yëpp ay supporters lañ maintenant nag loo gis dañ fii Sénégal loolu am na xam nga liberté créer une association am na. Mhm. mais ñun suñu association wax dëgg yàlla ña fa nekk ñu ngi ciy jàpp di ci dox di ci wax. Mhm. dama ne tout est rose parce que nul n'est parfait mais ñu ngi essayer tant soit peu ba minimum bi nga xam ne moom lañ bokk te mën ñu ko séddoo ñu di drapeau bu buñ ci nekkee ñu def ci le maximum nu ci war a def. ñëpp mën nañoo ànd si li ñu def de ñëpp mën nañoo ànd si li ñu def mais kenn duñu critiquer wala reprocher ni woote wuñu. d'accord. Mm. duñ ko wax deuxième Gaïndé woote ne dina am mais xaare moo dul am. xaare mooy lan ça veut woo nit waaw ba pour boo ñëwul duñ def dara. Mm. non mm. sa sa dañuy woote. mais duñ xaare. Mm-hmm. boo ñëwee fekk ñu si yoon bi nga dem ñu. Mm-hmm. loolu kese la. Mm-hmm. mais nag euh, pour ñeneen ñi créer la neen sa normal si les gens veulent te ressembler c'est parce que tu fais du bien. Mm-hmm. mais ñun deuxième Gaindé wax dëgg yàlla ñu ngi woo Sénégal yëpp. parce que loo xam ne bu ñu ko séddoo mais Gomis tout nous divise dans ce pays la politique nous divise suñu ethnie ñu divise la religion ñu divise à ah, pratiquement lenn laa gis lu ñu bokk te mun ñu ko séddoo muy le drapeau national donc kooku dañuy lancer un appel que ñun ñëpp nañ ñëw quand la nation a besoin de service que tout le monde soit présent yéen ngeen koy def ci moment bi li ngeen nekk nii. Mmh. temps yële passé Issa dina leen gis ngeen di taxaw di wax ay. yu rafet ci réew mi waxtu bi euh, damay bañ waxtu bi tënk ñu te euh, ba du ñu mën a kii euh, bële passé gis nañ ne waa AS Pikine waa Stade de Mbour waa ñeneen ñi doon def benn assemblée générale assemblée benn point de presse ñooñu di ñaxtu di kaas dégg di kaas. Euh, parce que ñoom boolewuñu leen ci mbir yi dégg nga. waaw léegi yow yow yow ban jàngat nga ci am loolu. waaw man de chaque jour moo wax ne lu mel ne ay coupe du monde ay coupe d' afrique ma sañoon ñëw bu six mille wala quinze mille wala trente mille supporters loolu moom parce que yow xam nga role bi supporter di am mm-hmm. aussi rôle bu ama solo may wala ñaari anecdote yu supporters yi nga xam ni. Drogba dama ko def benn commentaire benn documentaire si moom ñu koy laaj ban pression la gën a vivre mu ne ñaari stade la vivre ay pression yu extraordinaire du ko fàtte benn bi en Marseille la mu ne beneen bi senegal bii mu ne foofu soo fa nekk ba deuxième génne team la soo amul kii moral dëkk da ngay am problème amul loolu beneen mhm. Samuel Eto'o Sénégal Cameroun bi ñu dóor fii 1-0 a la fin du match bi ko joxee mi ko yéen bi ñu ko laajee mu ne le Sénégal on a tenu la Sénégal au Sénégal bu ñu amee victoire nañ ko remercier seen douzième gaynde bi match boobu yaa ngi rappelé wu. bi mm-hmm. ñu dugal à la quatre-vingt-douzième minute. Mm-hmm. mais au retour on va les montrer que nous aussi nous avons notre gaynde. Mm-hmm. yooyu tey dañoo wane une lecture positive de la mission du Sénégal douzième gaynde maintenant ils ont raison de demander à ce que ñu wala ñu jàppal mais ñun ñi nekk douzième gaynde faut pas oublier que le douzième gaynde il est les supporters. ce que le comité olympique est pour les fédérations c'est-à-dire le deuxième gaynde association des associations de supporters la man dama ci club et c'est tellement vrai que le président des supporters de comité de il peut être président du deuxième gaynde mm-hmm. mais moi je pas être président de, euh, de comité parce que j'ai mon club deuxième gaynde dafa am ñu fa ale Pikine am ñu fa ale Gaza mm-hmm. am ñu fa ale Matam mm-hmm. am ñu fa ale Foundiougne ñëpp kenn ñëw d'ailleurs activité yëpp boo gisee rek on est toujours derrière le drapeau national. Mm. mais su fekkee drapeau bi taxawul le week-end dañuy dem di com di jàppale suñu équipe respective ñenn ñu ngi ligue régionale ñenn ñu ngi L1 ñu ngi n donc ña fa nekk ñëpp am na fu ñu jógee li ñuy wax mooy wala ñu disperser suñuy force suñu ñu def benn synergie. Mm. de nos énergies. Mm. mais loolu pour faire ça il faut être deux à le vouloir aussi. Mm-hmm. man mi lay woo. am naa volonté pour woo mais est-ce que am nga volonté pour ñëw. donc loolu moo ko en tout cas ñun beddi wuñ kenn. Mm. gisul ngeen mën ñu fee dàq kenn. waaw léegi on a ni le pouvoir. Mm-hmm. Mm-hmm. ni la que lu Sénégal gëpp bokk. waaw mënut a génn kenn. léegi benn affaire dafa kaña ngeen di am autonomie financière mooy maanaam même bu leen état wala fédération jàppale. Mm-hmm. compétition bu amee par A ou B da ngeen dem parce que yéen. bu may xoolaat bu état bu. président euh, xam nga Macky Sall wala euh, wala Ablaye Wade bu wax bu joxewul bu kiiwul ah ngeen bloqué wu doo leen dem parce que maa ngi rappelé euh, à kii en Guinée équatoriale da ngeen yéex a ñëw. parce que fonds yi nekku fi woon. amu leen woon xaalis. waa kañ nag lan lan yow mii yow sa mandat bii. dafa naa ne yaa ngi sa cinquième mandat. Ah. wala sept sax. sept mandat wala neexee comme yow yow lan nga. incha allah dégg mais mais ñoom la. comme comme comme li nga wax léegi ci fédération ñoom lan moo leen tënk ci fédération est-ce que ñu ngi leen di comme jàppale wuñ leen nee nañ bu Macky Sall joxewul euh, parfois mu yéex du ñu dem. lan la c'est quoi le problème autonomie financière. dina difficile si. même Walf mais Walf sax am ah, ah, nga autonomie non financée. ah déedéet non non dama lay ah, expliqué. déedéet déedéet je m'explique. ah ah déedéet non non. non non dindiwaat que non déedéet Walfadjri dafa am autonomie financière. Mm-hmm. kenn jàppale. ni ma dégg ah bu ñu jàppale ma dégg autonomie financière. suñu jàppale woon rek mu neex. waaw bàyyi mooy soxla wala kenn dara. Mm. adduna amul kenn ko fi nekk ti soxla woon kenn dara. Mm. man loolu laa jàpp autonomie financière loolu mënaguñ ko am léegi moo tax te ñu am ah bu dee gisuma Sénégal kan moo fi nekk tax salawul kenn dara. mais bàyyi mais bàyyi ma àgg waaw mais bàyyi ma àgg da nga ma posé question. dañuy def débat dañuy waxtaan rek. mën naa juum mais si biir juum bi da nga may andi. Ah, mais li ma leen wax ni mm-hmm. c'est de réalité. autonomie financière da difficile si mouvement associatif bu ñu am ko parce que c'est des dépenses yoo xam ne fixe additionnelles yoo xam ne pour nga nekk en total euh, maanaam pour nga nekk en déphasage sax dafay yomb. Mm-hmm. parce que souvent c'est des yoo xam ne tu ne peux pas. nga prévoir que dans la saison beneen bi mooy ñun il faut pas oublier que ni on compte d'abord sur nous on se cotise deuxième nga mais on a toujours besoin l'accompagnement institutionnel financier de l'État loolu moom Gomis da nga kaa soxla. mais est-ce que xam nga aussi bokk maintenant aussi douzième gaynde monsieur Issa parfois di cotiser je pense damay dégg coach coach di ko wax. jël benn somme par exemple dimbalee ko équipe bi loolu. normalement war na mën a nekk. non non comme Casa. je donne l' exemple du Casa attends attends dama lay wax rek. je donne l' exemple dëgg la Casa mm. moom euh, day participer ci maanaam budget wu Casa. Mm. ma jox la yeneen exemple da ngay dem bii nga xam ne daf ñuy jege Côte d'Ivoire. ñoom seen douzième seen xaw ma nu ñu koy tuddee métier mais ñooñu ñun bi ñu nekkee fële au Caire en deux mille dix-neuf Euh, ca hôtel ba man ñun on a fait reportage mais ñoom nee nañu ñoom dañoo am seen xaalis bu leen état joxee. ñu jël bu leen joxul ñoom bu équipe nationale di dem. Mhm. ñoom dañuy dem. dëgg la waaw léegi loolu laa la bëgg loolu tey douzième gaynde waxul mën a toll foofu. Mhm. Euh, suñ dëllante te wax waxtaan tuuti rek dina leer suñu bopp nga wax nga léegi ay exemple muy comité national des supporters des éléphants CNCE mhm. ñooñu ils ont de cent millions par an seen président bi a un statut spécial est xam nga ne yow ñooñu dañ leen di fay. Hmm. moom daf daf na documentaire il a été avec nous là-bas. ok Gomis yow xam nga ne ñooñu dañ leen di fay ñooñu bu ñu génnee dañ leen di jox xaalis ni ñu defee prime les jours noonu leen lañ joxee prime. ils sont totalement et entièrement pris en charge am na benn daaw bu fa amoon yaa rappelé Côte d'Ivoire bi mu qualifié. ñu ngi qualifié euh, à la coupe du monde 2014 au Brésil. état du Sénégal état de la Côte fa dafa joxoon 300 millions les supporters ivoiriens ba président de club yi di kaas. Mm-hmm. donc en Af en Afrique les communautés de supporters là état mënuñ ci génn loxoom. te ñun fii wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale ci côté boobu benn. deuxièmement exemple yi nga joxe ci yeneen ñi que ñun effectivement yenn communauté supporters yi ñu ngi dimbali seen club c'est normal. parce que seen club la xam nga Aleka daa dimbalul Jeanne d'Arc. Aleka Sport la dimbali. mais ñun comme ni ki wax léegi jël xaalis jox ko Lions yi. mais c'est une idée ngeen nam ne fa ñun la ñu war matul sax ba koy joxe te les la fédération la. waaw euh, mais elles sont elles sont souveraines. Mm-hmm. dépend de souveraineté la. mais ressources additionnelles. waaw ma très bien. waaw nag foofu laa jëm ñun ñun foofu laa jëm may ma àggale foofu foofu laa jëm may ma àggale foofu may ma àggale foofu. ci loolu lañ nekk. mooy bu amee as tuut waaw ma àggale bu ñu amee as tuut mooy cotisation ñu am nañ ce qu'on le merchandising. Mm-hmm. le deuxième ngeen dafa am un GIE qui s'appelle GIE douzième ngeen buy gérer les activités financières. ñuy jaay ay mayo jaay ay casquette di jaay tout ce qui est merchandising ngi koy jaay pour moyen am ay moyens additionnels ñu def ay le sponsoring bokk suñu parce que dañu jël suñu visibilité. parce en contrepartie bàyyi ma àggali rek. dama lay wax dama lay àggali. bàyyi waxtu bi man moom mooy. Euh, euh, non non waxtu bi non gomis di ñaar moo am. naka ngeen mën a am GIE ngeen mën a am GIE di jaay ay mayo déglu ma. Mhm. di euh, ñii toog fii yëpp dama bëgg leen ñu àtte ma. Mhm. dama ne naka ngeen mën am GIE buy jaay ay mayo di jaay ay comme ni nga wax lépp et alors que ci biir douzième gaynde gars yi di jaay mais exactement waaw di jaay pour seen propre compte waaw mais mais mais loolu laa la expliqué ah waaw waaw mais mais soo ma waxee ma ma acca acca voilà xam nga ñun le GIE mhm. c'est un GIE qui est dans le douzième gaynde bien organisé bien structuré mhm. mais su fekkee dafa am des personnes qui sont dans le douzième gaynde ñoo xam ne sont des commerçants ne ñoom ils font ils ont les activités annexes on ne peut pas tey un gomis mu jël moyam di jaay feneen mais au niveau du douzième ngay na ñun tout ça c'est coordonné mu permettre kenn mu nekk concurrence ak la l'association en tant que telle. ah te mu amoon ma àll yow fekk nga fa. fan la fekk du a. paas bàyyil ma wax la. fan laa jëndee mbaxane. yow fan ko jëndee. ci maa ko jëndee ci benn ci benn ci benn ci benn waayu deuxième gaynde mu ci moom a ngi toog ma ñëw ba saa jënd ci moom mbaxane. fan la la ko jaayee. foofu ca kii ba. léegi en gros waaye bàyyi ma wax rek non laaj ko non dama est xam nga moom ñu nga fa woon. waaw fan moo fa am. soit table dafa nekkoon. waaw ñu fa jaay kenn ku ñu ñu def suñuy produit di ko jaay hmm. wala ku ñëw yor kàkkal ma xam ne ñëw jaay la ko sa biir néeg. déedéet wala ma àggale rek. waaw mais commissaire ñun ñëpp ñoo fa nekkoon. Hmm. boo ma laajee ma toog hmm. bien organisé dans domaine là. Hmm. maintenant quand un Aliou Sow. qui est dans le membre gaynde. mais qui a des activités annexes yoo xam ni daf koy def dans le gaynde loolu ñun suñu biir en consensus ça nous dérange pas moom mu ñëw def loolu. parce que ñun au niveau deuxième gaynde on fait du aussi. d'accord comme fay ñu kenn. Hmm. tout ça dañ koy discuter entre nous. kañ ngeen am élection voilà léegi voilà avant élection bi sax avant élection bi. léegi. Hmm. léegi sànq da nga wax lu am solo. Hmm. parce que nañu waxante dëgg képp kuy am subvention comme que euh, euh, dañu subventionné ñii. kon nag bu ñuy subventionné dañoo wax itam di subventionné euh, ay lu mel ni ay douzième gaynde parce que comme ni mu ko waxee. douzième gaynde ñi fay nekk. Mhm. di dem kenn fayu moom mooy li may mujjee wax kenn ah, fayu leen voilà mhm. kenn fayu leen te ñoom ñu ngi dem. Mhm. sonn ba dee bàyyi seen njaboot. kon nag euh, man defe naa ne tey jii moom mooy cri de euh, kii bi may lancé. mooy que il faut que booy joxe da joxe ñëpp. wala nga bañ a jox kenn. Mm. léegi nag tontul ti moom age bi kañ la. septième mandat. <laughs> kañ lay jeex naa nekk onzième xam nga au niveau. onzième xam non man si mais xam nga tax non en terme dans dans mm. amul limitation de mandat. loolu xam nga que amul benn texte bu wax ni lii mooy limitation de mandat. Mm. amul âge. doyelagoo tamit. donc non doyelagoo ma parce que. waaye non parce que c'est des gens yoo xam ni am na de sport. sport moo ëpp démocratie. ni nga xam ne ñoom ngay jiite ñun ñooy décider. mais mandat bu amul salaire. mais kon xanaa kon bénévolat amul. bénévolat Sénégal la am. te Sénégal amee Sénégal du zone gaynde bi mooy suñu credo mooy douzième gaynde le Sénégal d'abord. d'accord c'est important ah. ñu lay jaajëfal sa passage amoon na solo parce que information yi. le dernier mot. donc mm. yéen aussi dama suivre. Mm. parce que vraiment aussi bëggoon naa